mbokk yi jërë ngeen jëfati ci ànd bi ak jàmm ji info saa su ne bisimilah ñu jukki leen ci li fi jot a ci ay xibaax te gën a fës ci ayuba si ñu nekk dañu koy dooree ak manifestation bi nga xamante ni euh, nemmeeku nañ ko nit ki euh, démb waa ñoo lànk ak waa nitu euh, dëgg valeur ñoom nag ñoo wàccoon démb nag ci mbedd mi dem ca ndakaaru nag ñoom nag la ñu doon manifester bokk na ci seeraayub dund bi ci noonee nag mën ngeen a jàpp ni foofu xëccoo bu metti amoon na fa ci diggante takk der yi ak ñi nga xamante ñoom ñoo doon manifester te niki noonee nag mën ngeen a jàpp ni euh, ñaar ci ay leader teewoon nañ fa bokk na ci Abdou Karim Gueye ak ki nga xam ne moom moo di Guy Marius Sagna ci ñoom ñooñee fa teewoon nag jàppoon nañ leen waaye mën ngeen a ni lu tollook ñaar fukki nit ak ñett la ñu jàpp niki démb waaye nag euh, niki démb nag ba ñu leen euh, jàppee ca guddi ga lañ leen daal di libéré waaye ci noonee nag moom Guy mari Sagna gannaaw ba ñu ko libéré nag moom nag def na ab vidéo doon xamle ni ba ñu leen libéré ba noppi dañu téye seeni ay pièces yu moom nag la mu doon wax rek bokk na ci euh, puce euh, ni rek jot nga ay message ni euh, ñoom ñoo leen di message ci lu jëm ci wàllu drogue wala li ni mel jàpp leen ni du ñoom seeni puce dañu ko daal di nangu moom nag la muy dànkaaf bokk na ci nee na xelam dalu ndax kompolo mën naa am ci seen puce yooyu ñu àddu ci leneen wax itamit ci mbiru ki nga xamante ni moom moo di Bougazali ndax rek démb ba manifestation ba manifestant yi noppee rek gis nañu réseaux sociaux yi ñoom it doon na manifester contesté bu baax a baax ci wàllub vidéo euh, ki nga xamante ni moom moo di euh, Bougazali ndax rek euh, ni ki démb ci ngoon rek la ñu daal di dugal ay vidéo yoo xamante ni ñeel na Bougazali gannaaw nag vidéo yooyu la ko waral nag bokk na ci jamono yi koy jàpp ci mbirub faux billet vidéo yooyu nag la daal di dugal ni ki démb waaye rek mën ngeen a jàpp ni vidéo yooyu nag Bougazali doon na ci yëkkati ay kàddu lañ ca mën a jàpp rek moo di tiitaange bu metti rek la àndal ci boobu les vidéo ak rek kàddu yi mu doon yëkkati bi euh, bokk na ci euh, woy sama ndey dama jabet ak rekk ay waay yàqu na loolee mooy kàddu yi nga xamante ni euh, moom la Bougazali doon wax ci yooyu la vidéo ci jamono jiñ koy jàpp ci maletup phobie ak ay feuille noire moom Bougazali nag ma nga doon àdd ci mbir moomu moom nag la mu doon xam lee nag nee na loolee nga xamante ni lañu wane ca vidéo bi loolee dara amu ci ndax nee na nag lépp rek li nga xamante ni wane nañ ko ci mën ngeen a jàpp ni moom Bougazali nee na lépp rek ab complot la dañ koo bëgg a yàqal loolee tax nag ñu dugal yooyu les la mu doon xamle ni bokk na ca nee na nag la ñu gis rek la ñu gis waaye nag am na leneen loo xamante ni euh, wanewuñ ko ndax nag ma ngay xamle ni moom nag gendarmerie dañ koo ne euh, joxeel 50 euh, millions du samay kàddu moom Bougazali moo doon xamle li ni mel waaye rek mën ngeen jàpp ni ma moom Bougazali ba tey noppiwul ndax ma ngay àddu nee na mbir moomee du ko bàyyi benn yoon mu sedd dafay daal di porter plainte gendarmerie ndax nee na nag vidéo yooyu ñoom rek ñoo ko am te ñoom ñoo ko daal di diffuser keneen ku wax nag ci li ni mel ab gendarmerie euh, moom it euh, joxewul ab turam waaye rek ma nga doon xamle ni euh, nañu yëy nañu yàbbi bu baax a baax ci boobule mbir ndax nag waa gendarmerie amuñu benn jotu diffuser ay vidéo jàmbur ñoom ñooñee vidéo boobee ba ñu ko seetaane ba noppi dañ koo daal di booleeg dossier yi daal di koy yóbbu ngir seen ab enquête ba tey rek ñu daal di wëyal xibaar yi bi yoon nag ñu daal di dem ci wàll yi Ballago Seck ak xibaar bu tiis bu ñu xëy nemmeeku niki tey ab wuyoo ci tudd ci turu euh, kayit yi moom nag moom moo daal di am ab feebaru euh, cancer euh, ni ki noonee nag ndaw soosu ma nga dëkkee ca Canada ay atam toll ci ñaar fukki at ak ñeent moom nag ab borom kërub sénégalais la daal di am rek foofee ca Canada gannaaw bi nag ndaw si dafa feebaroon feebar bu ko tëddal bu yàgg rek ci noonee la ko ay docteur am wax ni ko benn fan moo la fi daal di dese ngir nga daal di wuyu sa borom ci noonee la ko borom kër gi laajee lan nga gën bëgg ma defal la ko laataa xamal borom borom kër ga moo di Waly Balago Seck laa bëgg a gis wala ma dégg ko laata ma wuyu ji suñu borom ci noonee nag la la borom kër gi daal di def ay démarches ba déggante ak ki nga xamante ni moom moo di euh, Waly Balago sekk moom soxna sa nag mën ngeen a jàpp ni euh, ba mu déggante ak Waly sekk ba noppi ca suba sa la daal di euh, ñàkk bakkanam ñu koy ñaanal yàlla suñu borom daal di koy jéggal ay rëcc rëccam ñu daal di koy jeexale ak Leena Gueye ginnaaw nag vidéo bi nga xamante ni moom njëlleem ak jongamaam ak sañseem di wan ni euh, nekkul ci benn naqar nekkul ci jafe-jafe ma nga ca jàmmam ak salaam moom nag la may wane rek moo di euh, képp koo xamante ni bëgg ngaa ñëw rek euh, pare na ndax leen a gay nag la muy wane bokk na ci jongama ba découragé la daal di def mbokki jërë ngeen jëf li moo nekkoon xibaar bu tàbbi woon ci ñun te ñu doon leen ko jottali sant ngërëm ñeel leen sant ngërëm ñeel sama cadreur Omar di leen jox rendez-vous ci beneen xibaar bu tàbbi ci ñun te war leen ko jottali jërë ngeen jëf mbokki Sénégal mbokki Afrique ana li waral coow li leen rek la parfum déodorant Narcos mi nga xam ni su ko gisutu rek tàggoog sa sago ndax ay xeeti baax baaxam rek ku ko weddi laajal la charmante dame aji mi nga xamante ni Narcos déodorant la tàmmu ci biir xolam ah ndax odeur bu neex bi muy yëg ndekete daal Narcos mooy secret ba tax na seen parfum déodorant Narcos bu mu jeexee ci marché bi le PDG Youssou Mbow di doomu Sénégal ne loolu dootul amati di ku nangoo liggéey taalibe akkan dem bëgg waaw waaw di parfum déodorant Narcos pour homme pour femme ngir wàccaa yu màggal gi ak gàmmu gi yéen grossiste yi seen jaaxle jeex na adresse bi moo ngi nekk siège bi fii ci Dakar Golf Sud jokkoo leen ak le PDG Youssou Mbow ci 77 464 62 45 li ci gën neexati nag mooy fépp foo leen nekk ci biir Sénégal dinañ leen defal li nga xamante ni moo di livraison seen parfum déodorant narcos waay waay parfum yi bëri na ci marché bi de waaye képp ku ñam parfum déodorant narcos xam ne rek moom rek ay waaja le PDG Youssou Mbow mooy ànd rek di ñaanal xalif général des Mourides Serigne Touba Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool te ànd ak wéer ak mboolem kilifa yi dina yi nekk ci diwaan réewum Sénégal. jàmm ji info point